J'ai <laughs> par rapport à cette affaire euh, à Cherbara, euh, à qui dit que euh,

suivre affaire bi euh, rebondissement ma ngi gis tay ñu libération ci. Euh. bon bu ça veut dire que euh, normalement. amna suite suite jox classé wu ñu li nga xamantene Thérèse def na mhm. mais dans ce cas de figure man dama ñi nga xamantene ñoy jappalé nga Cheikh Bara Ndiaye. oui mhm. ak keneen ak keneen ak keneen liggéey nañ loo xamante ne tey ci projet bi ñuy wax projet bi. Mhm. nit ñu mën a seen loxo ne ne man liggéey naa ko parce que amoon na fi ay jamono invité ko personnes. 000 mhm. personnes en temps réel. te bu paree ñaata ñoo TikTok ça c'est vrai. beneen camp bi lépp lu ñu monté comme mensonge lépp lu ñu monté Cheikh bu bu émission rek lépp dina koy mhm. bu lépp lañ mais ñooñu buñ liggéey ba yëg ci nguur dañu changer amna ñu ko comprendre si ñom mhm. changer nañ position. Mhm. mais buñ jëlé exemple Cheikh barami changer mhm. changé wul position. parce que man dama comprendre lan mo justifier attaque bobu contre Thérèse Faye. franchement parce que yow légui ya nek ci kanam. yow la ñuy attaqué nga wara a riposter wala ngay paare li nga xam attaque yexina ci yow. mais su fekkente ne da nga jóg ñu lay plainte dafay gêner si ñi nga xam ne ñuy si kilifa de il faut que ñu mettre à l'aise Ousmane Sonko ak surtout parce que tey jii ces débat de personne là man dama ko dama ko mës a contre débat de personne parce que tey jii ñëpp xam nañ euh, Cheikh Bara li muy représenté ci euh, côté bële mhm. déjà bu ñu ko porté plainte su demee amul ay argument wala mu indi ay argument ñu bàyyi déjà dem lante beek dikkal beek yoonu c'est des choses yoo xam ne mën nañ ko éviter mhm. moom ñëpp xam nañ ko ci ci ci ci ci macha allah façade bi nga xam ne yàlla may na ko mhm. ci communication ak yu ni mel

yoo xam ne ñi ngi fi cour des comptes mi ngi nag mi ngi fi keneen ak keneen ak ngi fi fii ku ñu fi dem enquêter lépp loo am lu lewul dañ koy génnee teg si taabal bi mm-hmm. bu dénk ko procureur ñu poursuivre la mm-hmm. kon am na débat yoo xam ne pour man dafa dafa dugg ci benn terrain boo xamante ne jaru ko woon mm-hmm. jaru ko amul benn utilité amul benn njëriñ amul benn njëriñ ak li nga xamante foofu lañ toll. Mhm. Euh, surtout du benn menace boo xamante ne tey jii boo ko attaqué après mu am loo xamante ne. mun na la ko mun na la ko apportel mhm. bu dul euh, yokk coow rek yokk ay kii dèjà nga dégg ñu ne euh, déglu nañ ko wala mi ngi woo wookale wala indil ay preuve ak yooyu temps buñ koy perdre la. Mhm. te mu ngi woon ci assise ñu ngi ko gisoon mu topp fa. nga war dem wuy yeneen mbir yoo xamante ne mën na ñàkk. mën daal dama leen di woo dama koy woo moom sax particulièrement à que ñu changer de stratégie. actuellement nekkatuñ ci opposition bi waruñu di tirer boo nekkatuñ ci opposition il faut nga changer sa taxawaay. taxawaay boobu nag boo ko changer moy tay ci ma dan tirer. Mm. légui damay fexé wut bal bu may bu bu may garder baña a tirer ci c'est important bu mu wutee bal bu may garder baña tirer tamit di anticiper waaw waaye ma dan tirer ma falu di waaye di tirer finalement les gens ne vont pas comprendre lan mooy sa position moo ma jàpp ne tey jii c' une erreur sortie boobu mo defon ci Thérèse fay mm. et puis ñom ñep la koy wax jarru ñu def ay débat de personne ñu jarru ko dem affaire du débat de personne enquêteur yi ñi ngi jëf seen i liggéey mm-hmm. rapport yaa ngi daaw di taw nañ toog jàpp seen njàmbur mm-hmm. du ma ne diw jël na du ma ne diw fii la dëkkoon du ma ne mm-hmm. leen non non non am nañu ko war a def ñu ngi koy def léegi yéen état ngeen yor te état moom moo yor lu ñi ñi lijjanti loolu lépp soxla woo leen man ma tok fi bu ñëk ba yor moone état mhm. dama naan wax dañ leen daan sàccal dañ leen faral diw dañoo enquête ba ñu neub ko sum bobu yor moone état mhm. mais légui j'ai les moyens et les instruments pour vérifier nit ki lan la jël ak lu mu jëlul su ma ci waxé da doon émission damay dugg ci lu mu war dugg kon damay noppi maanu mhm. bàyyi état mu def liggéeyam euh, je pense que lolu moy taxaway bi nga xamanteni ne ki jappalé Euh, Ousmane Sonko moom nga war am pour ñu mettre leen à l'aise pour ñu mettre leen à l'aise pour ne pas être également un allié encombrant tout à fait ok en plus moi je pense qu'il y a plus important pour euh, les euh, Sénégalais euh, ñu ngi wax wàllum autosuffisance alimentaire ñu ngi wax wàllum exploitation pétrole beeg gaz bi Dit ki nga xam ne jàpp ne dafa moi je pense que justice dina mm-hmm. def ligue. mais quant à diw daloon jaay keccax ak wala diw daloon def li moom franchement c'est des sujets que nous avons man jàpp naa ne nekkul ay débat yu ñu war débattre sur les plateaux de télé ku nekk am na passé merci mm-hmm. beaucoup ñu dugg léegi euh, si euh, journaux yi nga xam ne euh, moom la ñu sélection